نثر من الله وفتح خريب وبسر المؤمنين برام نثر الله دين جاي مبكي طالبي نعند سنت يالوخ الحمد لله على كل حال ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم mu melni ginaaw bu nu sante yalla te julli jonne tabi sallallahu alaihi wasallam mo dab yoo def ko noo ngi siyaar ku ne ci barab bi ku ne danaka waxtan wi bu ñu jitalé xidmatul xadim bi ba nopi nga ñun ñepp aha aha moy suñu li ñuy dajale ngir bëgg a liggéeyal yàlla ak sëñ sony maa ngi ciy sama bopp di soññ ku mu mën a doon ci mbooloo mi rek nu gën a taxaw ni nu koy defee nag alhamdulilah lépp a dox waxtu fi dajee liggéey sun borom bii nga ne moom laa waxoon ni nan liggéeyal sëñ Tuubaa jaamu ko yàlla waaye nan nan jaamu yàlla ci liggéey bii liggéeyal ko sëñ Tuubaa moo tax bu bisu sëñ Tuubaa jotee lan ca war a man nu man ko dama wax ci suba bi ñu ànd defe naa damay dégg kilifa gu mag ci yoonu murit muy nit li wax bu Cheikh Ahmadul Bamba waxoon Cheikh Issa Dieng wax naa ko tey bi muy liggéey lu jumaa yi njaareem taal taali bi fa nekkoon seen pas-pas dafa yéeme ba sëñ bi taxaw ci biir kër gi tiim bardaasu seng bi jàkkaarloog ñoom jëkk ba yàgg mu yëglu muy fi tasu waaye taalibe yi nag dañ ne nag yaroon tarbiye leen suñu xasee ànd ak seen kilifa du ñu jóg ñu daw jëm ci te mooy baat nga bi nga junj keroog ci da ci defaru gi boo demee ci téere Sëñ Tuubaa bu ñu wax naaju xaddaa Sëñ Tuubaa nga fay jàngale ak taalibe bi bu toogee ak sëriñam noonu la war a mel boo demee ci alxuraan suratu xujuraat suñ borom a nga fay jàngale ak taalibe ci yonente bi ak saxaabaam sa kàddu wërta jóg ci kaw lu dul dañ koo soxla waroo toog toogaay bu gën a kawe toogaayu sëñ bi lu dul dañ koo soxla waroo di gestu góos gestu droite fu ne nga xam ne xalaam bi jëm fa ci kanam sëñ bi lii nga xam ne moo ñu yàqal léegi te bàyyi Cheikh di ko wax toog ci kanam sëñ bi di yor téléphone ku ko ñemee ci kër sëñ bi boo demoon palais présidence wala nga ne police wala gendarmerie waa barab boo xam ne boo fa moom ni ko fay ba noppi te waxoon ni ñaar daa jar a xàmmee fi la ragal di may kone war na koo xam waaye fi la ñemee di may kone war na koo xam fu la ragal di may fu ne boo fa ñemee ñàkk ka waaye fu la ñemee di may fu ne boo fa ragalee ñàkk ka kër sëñ bi nag kër yàlla ragal fi maye kër buur nag moom àdduna la aw fii dafay maye dañ ko war a xàmmee moo tax yàlla jàngale ko ci rasulullah alayhi salaam ak saa war a toogee ak moom bu ko kenn jónnu mbéreetu da ko tere suratu Hujuraat dañ ko daan def bu jëkk jàppe Seydina Mohamed seen génération bi nu àndandoo woon nit daana daana traversé mbedd mi ngeen baal ma damay jàngale ni Mohamed ndax yaa ngi ci kër gi laabiram ak bàyyi xel àndandoo mu ne waaw maa ngi fi dekete naqari na yàlla mu ne bu mu amati di ko woo min war judur ci ginnaaw miir yi yàlla ne bu mu amati dandaa toog ci moom Muhammad sallallahu alayhi wasallam kenn taxaw fee ne ko nga may ma ci nga may ma sànni ci ñetti kàddu borom bi ne laa tarfaxu aswatakum fawqa sawti nabi alayhi salaatu wasalaam moom du ko def moom Muhammad waaye man yàlla maa ne mayetuma kenn à partir de tey nga yëkkati kàddu mu kawe kàddu yonente bi alayhi salaatu wasalaam nga tok ba yag ni wax ba yag nga tay ba jup tank sun borom ni loolu Muhammad du ko faj maa koy faj laa yasxar xawman an xawmin haasa an yakuna xayru minhum mo xam góor la wala jigen bu fi amati tay gi bo war sen digante yonent bi nga joge feñu ak sa loxoy nen ba ko ne ne foox loxo mala latu khadimo bayna yadayhi lahi wa rasulihi ila maanaam rabi sadaxa loolu da ngaa fab dara addiye teg ci sa loxo doogu jub nuyu yonente bi alayhi salaatu wasalaam kon sëñ Tuubaa suusu fi dara lii ma wax alxuraan la buñ toogaa di waxtaan ñaar toog fee déyante ñaar toog fee déyante ñaar toog fee déyante mu ne tere na ko laa xayra fi kasiirin min najwa toog déyante geeg réunion yu bari yi na dakk su ngeen toogatee xaar leen ku ni jëlal kàddu nga jël boo noppee noppi keneen jël kàddu bu yent bi wax na bu kenn waxaat mhm. alxuraan nay wax de mhm. lii kat mooy yoonu murit mhm. su ngeen ànd ak moom alayhi salaatu salaam di dem daa jëm ci barab boo xam ne kenn fa war a jaar bu ko kenn jiitu suñuy dugg ci kër gi nan bàyyi seen amul alayhi salaatu salaam jiitu ñëpp topp ci ginnaawam suñ génnee kër gi ba nekk foo xam ne ab àll la naam ku jiit nekk ci kanam ngir lu war a jóg dajeeg loola lu war a jóg yow nga dajeeg loola ba mu aussi ci moom alxuraan da koy jàngale def test bi ci Aboubacarin Siddiq kere ba ñuy dugg ca xuntu ba génn Madinatul Munawwara Makkatul Mukarram jëm Madinatul war muy suuru altine ca guddi seeni noonu topp leen Aboubacar da doon def bu féetee yonte bi ci kanam ba mu yàgg ba mu leer mu bàyyi yonte bi giir bu féete koo ginnaaw bu xawee lëndëm ngir ku jóge ci ginnaaw yem ci moom bu xawee lëndëm bu xawee lëndëm ci kanam mu féete ci kanam ngir ku jóge ci kanam da ci moom kere bañ demee ba yàgg nu yëg ni am na luy yëngu suñu ginnaaw te xam na lu mu doon nu kon teenoo jàdd dugg ci benn dugg ci benn lëm Abubakar da wax ni nga may ma ma dugg ci lëm mi seet ba xam luy loree gi fi déet bu dee loree mu lor ma waaye yow nga mucc dugg ci biir lëm mi ci booba jamono lëm mi junniy at ak téeméer fukk ak benn am na ko yoo xam ne kenn kenn awu fa ndekete iblis kero bi ko yàlla génnee génn aadama génn awa tan mero booy dem ci buntu pharmacie yi yenn saa nga gis fi benn dessin bu ne ci buntu bi te jaan laxasu ya iblis bi bi muy fexeel awa noonu la laxasoo ci garab gi ne ko kaay mos fii gaa yi fop euh, symbole boobu ñoo def ko ci buntu pharmacie xaw ma lu leen ci xiir tere ñu leen génne daa mer daa wax aadama ni ko bi la suñu borom naree bind yow aadama opposé bi ma la opposé la ba yàlla mere ba sanctionné ma génn ma ci yërmandeem fal la yow kon yaa tax yàlla def ma ni ma def kene ba muy tàggoog moom daa waxante yàlla ne ko kii tax nga def ma nii ma nit dinaa ko def ni ma def danaa fexe ba àjjana gi nga ko dugal ma génn ko ci sawara ga bëgg a dem naa fa ànd ak moom Iblis loolu la waxante ak yàlla keroog ñu waxante ginnaaw moog yàlla ku ne dem yoonam kere ba mu bàbbi koo foofu ci xunt bi la dugg si aadama ak bo yonent bi ñëw lu mu néew néew ëpp na mi daari at waaye iblis borom xam-xam la liiroon na ci document yi ba yëg ni am na yonent bi mujj jamono te bu ñëwee ku war a dem sawara mu ràmm la dina mos a jaar fii kon naa ko fi xaar milliards at dem na ko ca xuntuma dafa lalam bu nooy bu bu bu yàqale jee ki koy yàqal ba noppi bu waree noppale si fa lay noppale si ngir di xaar yonent bi juttu loolu dëgg la رفيق نبي المصطفى غار أنبه أبو بكر رفيق نبي مصطفى غار أنبه وحنا دق أبو بكر صديق ذوزك والوفاء سريف نينا أبو بكر مو دقو مو أم كل رك كندو أبو بكر صديق رفيق نبي المصطفى غار أنبه بكن نيمي wul ci yoon wi Abubakar képp jóg ànd ak Rasul alayhi salaatu wa salaam ban dugg ci biir xuntu ba ñoom ñaar Abubakar maa ngi lay wax effort bi Aboubacar daj keroog bi mu ànd ak Rasulullah ak li amuñu yonent bi daj keroog bi mu ànd ak Aboubacar. sëñ Xaadim yonent bi bi muy génn Màkka yomb na ci moom ndax boobu bàyyiwu fi dara. tuxu boo xam ne amoo ci dëkk bi amoo bàyyi ci dëkk bi amoo fi benn effort amoo fi benn kantil ndax lu yomb na Aboubacar bi muy génn Màkka ndeyam a ngi dund baayam a ngi dund te kar quartier boo dem am na cantine boo xam ne moo ko moom. ñaar nag bu ne gedd dëkk di tuxu ki yorul dara moom mën na ko yomb waaye ki fi yor dara moom moom tam gedd mën na ko yomb. Aboubacar Sadiq genn cantine ya bàyyi fi ndeyam bàyyi fi baayam amul ku yor mu génn ànd ak ñu ànd ñom ñaar bañ leen waré buñ jëmé ci luñu ragal moy jitu wéssu ragal ku melni mom abou bakkar sadiq barakallahu pour wax rek ak talibé bi seigne touba cheikh isa isa mu ne ko mbaa amoo taalibe boo xam ne nangu laa jëfal dara sëñ Tuubaa koy laaj de mbaa amoo boo xam ni nanguute jëf Cheikh Sane ne ko Mbàkke ah su ma ko amee bariwul de sëñ Bamba ni ko isaa boo ko amee wàcc ko saalim mënu koo jariñ dara jullit bu nanguute jaamu yàlla fa yàlla fay jullit du fa jariñoo taalibe bu nanguute liggéey sëriñam fa sëriñam di fayee dafa amee dara loo koy doyee lang-lang bu bunte àllaaxira yàlla taxaw malaaka yi taxaw seraat taxaw mu ne ku ci sa te amul ci yow dara loo ko war a man a mën a jox sonal seen bopp donc la loolu moom laa yaakaaroon nga ne ko loo ma yaakaaree woon sëñ Tuubaa nee na Seex Isaa taalibe bu nanguute jëf boo ko amee bàyyil da lay rek sa euh, euh, euh, commerçant ak a bañ client bu amul njariñ suuxee ñun ñun yàcc ci buntu bitik ba rek naan ko gars yi de ak seegunoo le xaw naa naaj ba jant soo yow jëndoo jëndaale woo te da xatal place bi léegi léegi waaj ne sëñ bi tey ngaa jox fii la lay wax moo tax jëf rek a wóor te yéen a ngi ci xidmatul xadim bii réew mi bitim réew ñëpp a ngi ci biir lu ne ñu koy def yàlla yàlla fay leen dañuy gaaw gaaw sa foofu rek ba jeex moo di liggéey yi suñ kanam mbaren yang ini diau, am nyari action benn bi moy daara ji ñuy defar ak jakka ja ca biir fi ne egg nañ ci fu nu weesu nopi na man na am bala no doxat fukki fan ci kanam ba simin nu nu libéré ko man na né te bu boba da war wara and ñun ñëpp dem wajal ko bala mbaren je ñew ndax mënu leena boole ñëpp ci benn bi day xat na ngi len di xaar ñom waxna seigne Ousmane ne ko fekk àllarba bi ñew wala lu ci topp fexe ba ma xam naka lañu wara jëlé jële barki démb wala dembu la génn ci tukki at nanu amna ci ñent ño xamni gëm nañ ko am ci ñaar ño xamni ño lank gëmu ñu diine ba faatu ña ca gëmoon diine ja am sa ak abbas mi ci lañ bokk Abdul Mutaalib ca la bokkoon daa lànk tabat yadaa abii lahab wa taba maax naa daa bañ ñenn ñi dañoo teel a far foofu bokkuñu ko papaam fekkewu daaw Abbas ni ko na nga ñëw ma dénk la parce que sofe location fii ne gaa yi sori nañ ma te am naa lu desoon ci sama secret lu ma bëgg a wax mooy jullee ngi goo xam ni ku ko man ci yéen jullit yi bis bu ne dee ko def soo demee ba taj ba ba taj ba semaine bu ne na nga ko def soo demee ba taj ba ba taj ba weer wu ne def ko benn yoon soo demee ba mu xat juróom benn weer wi ne def ko soo demee ba mu xat at mu ne def ko benn yoon soo xatee sa dund bu dee téeméer at def ko ci benn yoon boo ko defee sa yaram araamal na sawara bu nu yàlla may bañ fekke ko moom lañ ubbee barab ba fii def nañ fi lépp fay faat am na fi naaf lay weeru koor am na fi jullit yi am na fi waaye fee dara amagu fa kon dañ koy sos def ko barab bo xamni ne yalla ci islam rek motax tax seigne ali ken yene woon ba yenu taxu mu yenu ay bagasam jander xep ju ci tund wee te yéene joojee joojee mat suñu borom yobbu ko nan ñaan yalla ñu égalé kon dafay daara yu ñuy jang ak jangalé da fa jakka ju ñuy jaamu difa jaamuloo maa ngi ko wax ci bir wal tasbitan fihi jamaatan tuqim salawatul khams dahban yahgim bi seigne tuwaa bima nek ci bir yëpp mom lay joobee rek diko diko jang di tafu ci barke waaw maa koy wax ni koy na nga lay ñaan yow sun borom suriyatan tu jaddidu nahja nabiyal mustafa tajtahidu ñun amuñu barke way ñu tibbu baytu seigne tuba bi wala doon ñaané ñaan la ci yow yalla nga xamni ko la ñaan nga may ko te seigne tuba neena kuy ñaan yalla boole sawtur yalla nangul la kon lool mooy programme dama ci bëgg buñ ci yalla mayee ngeen tambali ko tay yalla nañ ko képp ku ci ñew bu boba vert blanc ngay sol moy couleuru islam bu mag mi na wex nga fa kol gu gu vert tek muy gor muy jigen nak waaw kol kol kol gi day vert vert gene vert la wax waxona jigen ndaw si Kolgu. xaw naa wute tuuti dégg nga ko kenn ku ci nañ ko wajal man na bala simin la nak kon kon ku xëy suba na nga songee koy defal li ma fa gën a bañ daal tubéy ji topp tànk yi moom bu ko fa kenn andi waaw tubéy nga xam daa topp tànk yi law law rek di wéy nu mu tudd mooy pantalon moo topp tànk yi bëgguma ko ci benn taalibaab soppe ah mbaxana yu am mbaar ni am bar mi bu ko fa kenn andi hmm wa kay na ngeen na ngeen yiw ngeen japp ni dañoo wara deeli ak yalla sun borom musu fa am fi ñuy dem ni lool musu fa am ben daara bu fa am néegub yalla ci bir amu fa kon innovation la ñun ñoko fa jëk sos bu noppee ñun ñëpp julli julli gi taalal suñu loxo suñu borom ñaan ko fii nu liggéeyal fi islaam ni ñu ko defee ci Touba def ko ci Nasrulaay gii fii ban fii ñëw àll la néeg su ndaw sii soxna màgget mi féete képp fi nekkoon nekk jàkka ji moo tax pentre boobu ku xoo fanaan di nelaw kese sax xamoo sa bopp pantre bi daj na lu ne ci xalwatu ak sujjóotal yàlla néeg bii ab yaa fa suur fi woon fanaan ndax loxo waaye ñaan mu nangu daan defee lépp naa fi yi foofu la juddoo majaalis yi foofu la juddoo xalwa yi foofu la juddoo ba fii mel nii mu mel moo tax yomb naa jaamoo yàlla ndax jeexital yaa nga fa loolu nag moom jëm moom lañ fay sosi bala ñoo bala ñoo egg na maçon yi amone yitté diko fa def bëgg na fa kamil yu bari bari ñu ko ubbi ay kamil yu bari bari ñu ko ubbi dana fa am yo xane ko mokal te nek ci ci muy goor wala ngay jigen diko fa fa kamil boy bu ngeen waajal ko ko mokal alxuraan te nek ci daara ji mo xam gu goor nga wala jigen nga ko mokal diko fa def programme naa ko insha allah yàlla na ko ak yenen yi nga xam nak mom ay junjula wax naa ko imam yi ni ko ah soxla naa liggéey ba moo lay defloo gars yi dañ doon maçon waaye boo di a xam ne yow di nga maçon yow it bu soobee suñu borom fekk ñaari fan ñett bu gars yi ne man mën naa ne nu xam nu ñuy def kon loolu mooy programme bi waaye ni ma ko bëggee rek waajal loolu te ñaan yàlla fekke ko te ku nekk ci yéen nga wut loolu ba buñ kàbbaree jox yàlla sunu ñaari loxo seen abima seen yiwaay rek balaa balaa ju liggéey tëlmal suñu borom ne d'accord naa fondation dafa am solo. su xasee dëgër loo ci tegati baatal ko. te gis nga jaamu bi ci gën mooy defe fa defe ko fu mu musta sujjóotale yàlla. te barab bii wax naa ne moo doon tooli sëñ bi waaye gannaaw bi lu mboole lu mu sa tilim li fa la koy xëpp. ab sën la woon kon bu ñu demee ba jàkk taxaw fa te wax naa ne barki démb yàlla day tippoo ay palaas ñun ni ñu tippoo place ñun di ko tabax suñu borom di tippoo place ni fii moo ma gën a neex ci dëkk bi fi ne fu ñuy sujootalee yàlla ci kaw suuf moo gënal yàlla fu ñu ko dul sujootalee fu ñuy mooy yàlla ci kaw suuf la yàlla gën a bañ fu ñu ko fu ñu dul defee moo tax jàkk yëpp yërmande yàlla fa ne bunti àjjana lañu auberge ak hôtel yëpp merum yàlla fa ne bunti sawara lañu loo xam nga loolu fee nag fee nag buntu bi yàlla ci àjjana la moo tax gaa yaa ngi fay sonn rek loolu na ko fay def tey ji xëy nañ fa ba ñu fa jógee léegi la fa ne asal na ko woon léegi fi ne jàkka ji boo xam def naa biir ga karoon na ko ba noppi gaa seen yaram daa tàng te Ibrahima nee na jàpp balaa talaata mu leen seen yëfa ngoog kon lee mu sori bu dee ci bâtiment yi sori nañ fi nekk nii kon nu préparé loolu yéen ñëpp ci yiwaay incha allah boog man nu mu egg fa benn waay nekk am noire balaam ñëw ne xuj sama kanam weer banaa laa wax sol lu weex doo dugg ci kër gi. waaw boo si matar daay boole rek boo ko defee mun la ca biti rek nga xam nooy def ndax ndigal kon nag na ko ñëpp bàyyi xel kon loolu mooy defi nekk noonu bu noppee ca loola nag incha allah mal mag mag mi muy màggal gi gaa yi jàmbaar lañu lool fii ba bitim réew ku ne yaa ngi jënd nag di ko joxe ma baaba jëf nii mu def léegi nii jox la addi yi nii nañ ma jëlal nag dugal ma ci màggal gi mu fekk nag yi fi nekkoon keroog bi mu ko defee léegi la ma fekk ci kaw jël am woon ni ma lii ne sama addi yi boppa yal na la yàlla taxawu amiin soxna Rama Njuug bi ma génnee bi xalwa laa ubbi sama téléphone fekk mu yónnee ma ko balaa bis ba daañu ci waxtaan yi ngeen war a jënd yëpp ngeen wut ko ku wax soxna Ndeye mari Ndiaye mu nga France moom tamit dafa wax ni wax naa sama bokk yëpp neen jébbalu naa man murit la maa ngi ko wax léegi sama yaay ni ma moo yow loo xewle nun taalibe seex la nu yàlla yàlla guddal ko fan <laughs> yaayam ak i bokkam dina ma dégg mu ne ko yaay maa ngi doo gis lu ma doy ci kaw suuf jox naa ko sa bopp te teewagu bët ci saayir jàmbaari lislaam son day mari yàlla na la yàlla taxaw te dimbali ak sa yaay dama ko ne sa yaay fexeel ba ma gis ko mu ne ko waa te mu la woon di seetaan ci ci ci ci vidéo yi rek tey wér te bàyyi bàyyi nga ne mu ne ko daal man wàcc daanoo ci gën a gaaw wax naa ko sama papa wax naa ko sama ñëpp nañ ma bàyyi sëñ Assane mooy sama baay moo may tuddal ma amee doom moo may may mooy lu ne la wax yàlla fay defe na ko noonu ñoom Babacar Seck ñoom depuis Amérique bi bi ma ubbee sama téléphone laa gis ñëw tam yónnee nañu seen ni dañuy jënd nag mama mii xam ngeen ko te nekk puut nee na ma loo soxla ci ginaar dañ ma ko wax moom la Moussa Dadju mi waxoon keroog fii ci xeetu ginaar yi ak yeneen kon defe naa bu ñu eggee la dëgg ba ba yi ngeen di war yi génn yëpp ngeen génne ko dinañ sant yàlla suñu borom. alhamdulilah. leen waxoon daal ni. nan nekk ay taalibi damaa wax léegi nii sëñ Tuubaa moo wax see esaani ko taalibi bu nanguut a jëf ñun nañ doon taalibi yu nangoo jëf nañuy def Tuubaa ba xalifa sëñ Tuubaa yëpp gërëm nu la laa muy def ko fi njaboot sëñ Aliou Kane gi ña ko man am lu ña nga xam ne xaj na seen loxo dafa xaw a néew doole te bisu mbooloo la nun bu nu gis ku mag ku ndaw nan gis yàlla jëm sëñ Aliou ku ne lañ wut nag jébbal la ko ngir jëm sëñ Tuubaa ak sëñ Aliou Kane ñom ñep bu soobee yàlla doo ko def nak nañ dan def ci kër ga yalla mëna naa atte ya di am ay am nay soppiku ndax daaw dañu tanton fi doon ak ne lool lepp lool jeex na fa ya yaatu na won ak ya bari na lu mu néew néew néew mat fukki sal de billet juróom am na fa kon bu ndey saw jaay ne fu ñuy sango bu ma nee sango rek dana wo yalla nañ ko fekk ak jam yàlla nañ ko fekk jàmm loolu mooy dafa nekk wane kon yooyu yëpp ñu préparé ko ak yoon wii ak li ci war dem ngeeg dikk bi kenn ku nekk ci yéen na nga xam ni cellule de communication nga say xarit ak say mbokk na ñëpp ñëw ñu fexe ba gu ren gii ëpp yi ñu doon def ci kàttanu yàlla donte daje nag ay xew-xew kasara ba nga ci kanamam trois jours après moom mu ñëw mu ñu bu ñu paree ñetti fan toogaat ci am na beneen xew-xew yu mag yu am. waaye kullu rasbin bi ma la dee farion dëkk bu ne ña yaakaar tañ sopp ko bu àdduna lépp doon yënguti mu jógee foofu leen jëm kon nu ngi woo soppe yi di woo am di jàmm yi ñëpp ànd ak nun ñëw kon mbir maa ngi noonu am na communiqué bu ngeen daan def soo paree léegi ne man ma topp ne ngeen def ko fii ñu paase ko après naa gis suñu assis ñoom ñu defaat ko foofu dox bi ngeen doon doxit yii moo bari woon waaye bëgg naa seen ngeen seet samedi dimanche leen di kañ ngeen di tàmbule bu fekkee fas yu pare na fa leen bu parewul ngeen jël bu bàyyi taal bi tàmbule ko ba nga noppi ndax bi ci jot jot na bu def naa 20 jours moo ci des kon bu ngeen doxee 10 jours yi ñu dugg ci lële ñu nekk ci leneen kon loolu mooy mbir mi ñu ngi bég bu baax a baax ci ñépp nag ku nekk bañ tàmbalee léegi yaa ngi def effort sa wàccaay la soxna Mariam ak waa këram nan war a saytoo defin ya ak toggin ya ak ànd ya lu bari yàlla mën nañ koo yombalal ren ngir lafa fa jot a nekk nga xam ni dana dana ñu dimbali ci tànt yu bari defe naa bu nu tàntee kanam ga ak pénc ma xanaa waañ wa waaye nangami baas yu bari noonu def nga daan doon kii am na ci yoo xam ne wàññi ko naan ngir amatul nii yoo xam ni dañ koy tànn nii dafa dëkk wala bu fay am kon lu bari te am na baas yu nekk fii yal yàlla fay ñëpp ñu ko doon ñi sonn kon loolu mooy li ma bëggoon rek jot liwaat kon xew-xew baa ngi ñëw bu ko kon ginnaaw loolu daanaka yi fi xaw naa mat waaw kon nag fa leel am du wa sukuru euh, nu benn soxna ca États-Unis da doon ñaan ñetti bayit rek nga waxal ko ko nu tëj ko ngir mu gunge ko kaset kii bi bu ko waa ji defar temps yëpp nee na nga ni màggal gi moo tax dalatul yooyu <laughs> waaye màggal gi daa duy sëkk moo tax acca bisimilah wa min lawazimiha min lawazimiha minhajuha wa hiya shariatu fi badin wa xayaati noo ko yëkkatee wa min lawaazimiha minhaajuha abadan min lawaazimiha minhaajuha abada wa huwa shariatu fi badin wa xayaati وهي السريعة في بدء وغايات سبات بن خريول وني دا سونو خنا ومن لوازمها منهاجها أبدا وهي السريعة في بدء وغايات يوني ومن لوازمها منهاجها أبدا شريف ني وني وهي شريعة في بدء وحياة ومن لواسمها منهاجها أبدا في بدء نمغوخدي وهو شريعة وهو في بدء وحياة ومن لوازمها منهاجها أبدا وهو شريعة في بدء وحياتي ومن لوازمها da bok ci li tax nit nek nitu yalla bok ci gay moy farlu faw nak len lo wara def te yalla tax doko te lolou munul am lulul la nga nek nitu sharia xam nga am sharia nga xam ni ponki sharia dang ko respecter fi bat sa jamono commencé boy tambuli na nga sariyaawu waaye booy jeexal na nga sariyaawu ndax ñett dafa am gëm sëñ bi doyloo ko mu doy ko waaye xeeti jaamu yàlla yi fonku ko bari na de wala nga fonk sariya ba noppi te gëmoo sëñ bi walla nga doon nitu sariya ba noppi gëm sëñ bi ñett yooyu seigne tuwaa wax ni ki nga xamni daf sopp di ma liggéeyal bëgg ma waaye mu ginnaaw sariha dana am aljana ëllëg ngir jaayante naa ko sa borom nit duma yaakaar di lakk waaye addunaam gi foog ma am fi problème di liggéeyal seigne tuwaa ba noppi ta bàyyi sariha ak kan ki nga xam ne daa topp sarihaam waaye man nee kooka dañ koo baag boppam te barab da ñëw boo xam ne ku ñu fa dimbalu nag mën ngaa sonn ëllëg foog ndimbal am intervention am koo xam ne gëmul sariha ba noppi ma ab yëfër la mbàkke ku gën mu ne ki nga xam ne faratay yàllaam yi bàyyiwu ci dara waaye sama ndigal yi bàyyiwu ci dara kooku nag mooy waaja moom la sariya wax ni wonte faqaha ولم يتصوف فقد تفسخ واي ومن تصوف ولم يتفقه فقد تصندخ واي ومن جمع بينهما فقد تحقق سريه كسي كسي كسي تجمع حقها كوكو نافق لا نحن جاي جاب نيالا منون لي واي تصوف كسي تجمع سريه نانا سيدي ساي waaye ku boolee ñaari nag di ko doxal kooku nag moo nekk ci digg bi kookoo baax wa min lawasima minha juhan abadan wa hiya saratu fi bat wa khayati wa min lawasima minha juha abadan wa huwa shariatu fi bat wa khayati wa rufxatun wa huwa ikhwanun lahu himmun waruf xotun wax wa ixwaanun lu lay jàpp ndalal sa dem ci yàlla gaaw mooy nga am yitte ci sa mbokk yi bu leen xeeb dëgg looy def nay doon dëgg sus nag say mbokk bu leen war bu leen trahir boo bëggee am yàlla aywa wal kullu min jumlatin saadaati zuur tabib yakfi muriidan mariidan saa xawaaya xala mel na ñi ma wax ñëpp am nañ ay daraja ci yàlla ay wali yu lañu wali yu yoo xam ni seen martaba seen diggante seen borom egg na ci mën nañoo fekk taalibe bu nekkul ci milieu bi nekk bu nar a lor ñu fexe ba génn ko ca loraange ja toog fii taalibe nekk ca ginnaaw géej nga yëg ni agressé dañ koy bëgg a dal nga fexe ba rawale ko ba duñ ko gis taalibe nekk ci frontière tiit ni barke Mohamed nga fexe ba ba rawale ko taalibe bu nekk ci njàqare mbaa ci feebar nga tiim ko raay bopp ba ëf mu ni ñokket wér dem yoonam am na ñoo xam ne ba yàlla may ne leen ko doon wax yàlla def ko nee na booy wut sëriñ wutal gaa yooyu ma la wax aywa كل من القوم شيخ عالم ورع minhum murabbin bi askarin wa ñan lay wax ni kulul minal xaw mi gaa yu tedd yi ku mel ni ki doon tudd léegi Abubakar Sadiq ak li mu def diggante ak Rasulullah ku mel ni Sina Abu Sina Omar ak bi mu duggee lañ toj tax yi nodduloo bilaal lislaam mel nii mu mel quarantième personne la ci diine ji kere ba mu tuubee asamaan yi juróom-ñaar suufi juróom-ñaar malaaka yi yi ñëpp àndal sàbbal yàlla suñu borom ndax kontaan ci moom waaye li muy baax baax baax mbujam dañ koo rey Abubakar mii ma tudd léegi léegi mbuju dundam wax na ni matt mattu jaan ja moo moo moo moo wunniwaat ca la xoolal ku mel ne Seydina Aliou rakk la ci rasul alayhi salaatu wasalaam mbooloo mu musa dugg bu fa jógee ñu tuul waaye loolu yi baax baax ba denc doomu yonent bi ñoo ko Fatimatu bint rasul teewul Aliou dañ koo rey xoolal Seydina Ousmane ki yàlla rus yonent bi rus ko malaaka yi rus ko teewul benn waaye ko rendi pourtant amoon nañ ijaaba bu nu mën a ñaane yàlla ki leen nar a alak alko waaye kon bu boobaa cër bi leen yàlla nar a jox ëllëg duñu ko mën a am moo tax Mohamed baax dëgg balaa mat baax dangay ngay fekk ku la tooñ nga mën a fay bu rek muñ ko sëñ Tuubaa nee na gaa yooyu lay wax maanaam jekku sab noon man koo jekkili ba noppi jéggal ko koo koy baax waaye ku la tooñ nga fayut ba noppi ni baax naa koo jekk jekkili ko ba noppi baax naa te doo muñ kenn te doo muñ naate boo dee ci gaa yi laa bokk sëñ Tuubaa nee na bokkoo ci gaa yu baax yi laa wax nee na ñooñu laa ne ñoom ñu waraxul ñu sàmm lañu seen cëri duñu mooy yàlla murabbin ñetti façon sëriñ ñoo am am na ci ñoo xam minhum murabbin dañuy tarbiyee nit jàngal ko ba mu daj ak am na ñoo xam ne foofu lañ fa lañ nekk bu noppee ci nga xam li araam bàyyi ko xam li baax di ko def am na ci biir am na ci ñoo xam ne murabbin bi askar yi ismail ahsam dañ lay jox ni la del def dog bi suba nangam boo goonee nangam ba nga xëy xëy ubbi bi fëgg bunt yàlla dugg bokk ca gaaya am na ci gaay yi am na ñoo xam ni seen tarbiya ca tool yi nga jëm wut la dolli xel koom wut doo koy laxasaay fekk waa ju dëngoon nekk ca taax ya dara li vite ñam nekkaloon comme jekk agressé la comme jekk rey la nga tarbiyee ko ba bu dem seetee boo ko saagaa du fay boo ko dóoree du fay ñetti façon sëriñ yooyu ñoo am. am na ñoo xam ni wantaay képp nga toog nga upp nga upp leen boo ko defee boo noppee egg ci yàlla am na ñoo xam ni yoral leen ni daal képp yàlla jégal seen bakkaar parce que dañoo egg am na ñoo xam ni maanaam ñu naan ma noppi jox la nga naan yàlla baal la parce que seen gémmiñ a barkeel seigne touba nee na yi ñoo am ku yare ci kurus ku yare ci jangale ku yare ci terbe ci liggéeyloo wala ku la addi nga jox ko mu faj sa aajo seigne touba nee ñetti façon sëriñ yi am nañ doxal ba xam noy foy mu ak ñom minhum murabbin murahin bil ishaara ki ci gën ci ñom moy ki jangale ba nga ne har, mu yela ba nga ni ba nga ni jar mu yéegale sa borom ko taala sëñ boo xam ne bu noppee ci taalibeem taalibeem bi bu demee ci àdduna mën koo lijjanti bu demee alaaxira mën koo lijjanti moom sax moom taalib koo yaakaar bu faj saaju bala ñaan saaju faju am na ñoo xam ne nañ loon muraqin bi halin abadan minhum murabbin muraqin bil asarati waaye am na ci ñoo xam ne toog débat débat nii ñuy def nii ñu waxtaanee yow ba nga noppi kat boo noppee bëgg yàlla ba dem fas ci ko yéenee jaamu ji waxtaanee benn téere xoqa nga dégg njariñ li nga pare dem jëndi ko moo wax la li ismlaay asam di jariñ nga wut kurus laaj turu boo def ber sorox jaamu yalla ba say ranguñ di genn ndax xol bu toj amna ci ñoo xamne ne ma na noonu ci yow ne sëñ tuwaan wutal ci gaa yooyu كل خبير بأدواء القلوب معا يكفي مريدين أنواع الشقاوات أمنا تي نيوم غيس nga غيس nga ni lu di xeñi so moye yalla ñew seen kanam non nga leen di xamoon bàkkaar daa xeeñ ni parfum ne xeeñe neex bàkkaar noonu la xeeñe na xari dafa am benn góor yàlla taalibam daa jóge fii dem Mauritanie di ko seeti bi muy jéggi dex gi fekk fa soxna suy fóot aj siir ya takk ko ba ca wóomu ya sëgg ci dex gi di fete bi waji jele locho bay jall gestu ko xol yel yi gemat beut bi jeegi dex gi jall bir murtani bam ne sut jox la serignam loxo da kon du ma jox la ko te seen mu woo sa kanam gépp a ngi yalla waji waaye ne ko man mooy yalla musuma ko def man ko sa beut yep da doon jalo bi ngay jeegi dex rosa gi amna soxna sorom nga xol yelam ya mu ne ko mo ne ko moo sa leeru beut te fekkewu ko xoolal jooju waay wax naa leen fii taalibi taalibi boo xam ne ànd naag soxnaam luy ji ab sëriñam barke dem moo njaay ko wàcc la ni cobbay mu bàyyi ko dem këram gerte ci jeex keneen takk ko yëggaliwul kooku daa faatu mu del si di seer si sëñ bi sëñ bi ko demal jëliwaat sa soxna sax bi ngeen may nuyu boobu kawar gaa ngi ci xoolal kooku xam naa ci góor yàlla yi koo xam ni nekk na fii fi ñuy bëgg a màggale ji toog takkusaan ci njoowaanam ab taalibe bi mu jóge ndaxaaru laaj ay ndogu dugg ci saxaaru ngoon bi muy ñëw ci fii ci fukki but fii ci Thiès saxaar gi dërëlante ndànk pour wàcc mu doon ab kaw kaw bu mel ni man ni fa yi doon tëb kali saxaar gi lonku caay ji mu nar a xam nga saxaar gi gaareegut xamul ne xew mu nga kurub bàyyi faalam ket bi saxaar gi di dante ndànk mu ne fëyi rek ndekete caaya ji lonk na ci weñ gi waaye ba mu ne sëñ diw fi sëñ bi toog ci njowaan gi ci dëkk ci këram la fab loxo ba sànni ci ginnaawam dellusi ko baaram bi dagg di naaj moom sëñ bi douze kilomètres seen diggante ñoom ñaar ñu fi nekkoon ne kon lan la mu ne diw la saxaar gi doon bëgg a nàngamtaan moom laa doon dimbali ci Cees <coughs> samaam def na fi lii gaa yaa ngi noonu tuur na fi ndab lu nekk man te boo mu nga Dakar gaa yaa ngi noonu xaalimul Moustapha sànnan taalibi bi ak kort Sëñ mu aw ko loxo ba néew yi ba kenn xamul nu mu toll saa yu xëyee maam Seex Rafal di ko ne am Mbàkke man sa jaam bi man sa nangamtaan bi Mbàkke li métti la te xaaral ma bën loxo bi naan ko dagar ji ñëw ci man yow nga mucc <coughs> hmm? te taalibeem lañ sànni kort moroom taalibeem kat koo ko def ndax kooku daa gën a jege sëriñ bi sëriñ bi di ko sant yi mu ko yoo xam ne sant kooku moom mu mer ca ni diwut moo ko fi jëkk mu jëkk ma am yàlla am na <coughs> am na ci kër yonte bi aleyhi salaatu bi benn waaye bën loxo ba naan ko yonte bi di ko def nga musiba ndax naan nga sama deret kon natt ba sama waa kër am ëllëg di nga ko am am na <coughs> نصر من الله وفتح خريب وبشر المؤمنين برم نصر الله دين جاي